mbokki Equivox téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku ci yéen ah tey nag daa am daanaan bu ma toogal macha allah xaw ma maag moom ku dax bu lu son sax waaye xam naa daal ah deux fan. Las Vegas. Las Vegas. fi liir wax. fi liir wax. <laughs> Las Vegas Las Vegas sa futur adversaire. Euh, ah kooku adversaire boobu dafa bëri wax quoi. ñuy ñëw ci loolu. hélas ma nuyu téléspectateurs yi rek ak euh, ñëpp ñu ñuy suivre ci Equivox Vox Arena di ñaan Sénégal yal na fi yàlla def jàmm ah tey nag ñu ngi togg ak Tafa Gueye 2 l' espagnol Tarobeja l' international sax laa koy wax ndax li tax mooy défendre na Sénégal ak équipe nationale te li may wax Yaxya Jóob Yékini yaakaar naa témoin la ci Eumeu Sène la ci ak ñeneen ak ñeneen li may wax defe na Fara Awde Sarr Yaxya témoin la ci li may wax Yékini keroog ba muy daan euh, Balla maa ngi toog ndeysaan waaye man keroog ba may daan Atlas moom mu ngi toog mu ngi toog <laughs> Eumeu Sène Eumeu Sène def na fa ay jaloore def na fa ay jaloore yu bëri bëri bëri bëri xam nga tamit Niger du fii du fii da bëri Niger dafa neex uh-huh. boo fa demul rek doo mbër ndax balaa nga xam ne mënoo bëri rek nga yegg fa nga yegg Niger waaw boo fa yeggee di xam ne am nañu mën a bëri uh-huh. ñi ñu andi fii ak ñi ne foofu bokkul ñoom seen dëkk lañu gën a amee confiance uh-huh. bu ñu ñëwee dëkk jàmbur doo nuyool nuyool téléspectateur u Equivox yi waaw ah, Equivox maa ngi nuyu ñëpp di nuyu àdduna xam nga man àdduna may seetaan euh, su ma duggee si YouTube bi ñu bëri dañ may bàyyi xel di sant ñi may seetaan mhm. eh, di leen wax ne gëñu ñoo gisee tamit Jibi Ndiaye mooy directeur commercial bi nekk sama xarit mhm. yàgg ma seetaan ci mboppatu mhm. booy bambara booy ma fekkee na ko ba ma koy daan ba ma koy daan Tidiane eh, moom fekkee na ko Jibi Ndiaye bi fekkee na ko moo tax mu nekk sama xarit mais deux daa mel ni toj ngay àll toj nga mbapati réew mi de mbappatu booy bambara kenn la ma fa def nit def ko fa hmm. eh, ba ma fa jógee fa nekk sose bu faas waaw moo tax yàgg nañ fa ba mu fa boo sotti ñëwee. waaw euh, ci ci ñoom Gris Bordeaux doon ñëw. Mhm. ñoom Lac Rose ñëw mbapat fa. mbaru foofu la ma fa def kenn nit du ko fa def. mais sa bëri réew mi dañ koy coow ba tey ñu bëri dañ naan ni nga toll woon mhm. yow ak mbër bu mel ni Bathie Seras ay Djily Mbaye guddu ngeen rëyu ngeen ak yeneen i mën a bëre lool gis nga Bathie ni mu toll nii bu waxee ñi mu daan yow doo ko gëm waaw toj na benn guddi de eh, dafa mën a bëre ni xool sama combat ak moom Bécaye Mbaye ne ak ca lambeer ca kaw lay xam nga loolu gis loolu yooyu bëri maa ngi ci làmb xam làmb ji wëlbit gang bi ak dóor mu daan yi mu toll nii <laughs> te mu daan de mu daan la am na mystique xam ne force frappe la dafa toll foo ragal bëri fu mu nii mu ñoo joxe bëri ñemewu ñoo bëri ndax bëri boo amee def bëri wala ngay def benn technique nit mën na laa contre moo tax bëri dañuy ragal bëri léegi mbër dëgg lu nga xam ne loolu. yaa ngi bàcc Seras kere Demba Diop gis nga na mu mel. bàcc moo tax barik moom moom damaa neex comme combat yëpp maag moom war nañoo bëriwaat ndax xam ndax. waaw. adduna bee ko soxla. bàcc nga soxla fi mu ne nii yow. non non maanaam bàcc sama bëri moom dafa neex xam nga bëri nit bi bu loo dugal mu génne loo dugal mu génne loolu lay bëri adduna dama jaar ma koy vocal ba sonn waa France ñoom Lamine gars yi ñoom Mbaye. ne la yàgg bàcc non yàgg bàcc loolu ni xaar ma ne ko amateur yi ñoo promoteur yi ñoo ragal a tëgg combat boobu ndax lim li ci nekk ci coow waaw mais loolu dañ ko war a parce que mbër mu ne war nga bëri moom ñaari yoon ba ñetti yoon te baaj benn yoon ngeen bëree baaj ci itam daa mel bi mu dugg see ci lam sonal na waa ko mu stoppé hmm. xam nga dafa ma daan jili tam nandu ko mais Balla après stratégie bu koy daan ne laa Balla kii ni daane jili ak ni daane uh-huh. man sax sama ñu koy coow ñu naan moo ko daan mais lamb ji weesu weesu na mais après moog Balla Diouf mm-hmm. non Balla Diouf six heures matin laa ko yee ndax man man a Djily Mbaye ak Bac euh, ak Balla Diouf nekk chaque jour man Djily ñoo doon nekk loolu ëpp lu ñu nekk mhm. léegi nag comme daan na mag la lañ wax léegi damay jël Balla na ko fii xaar ko fii dina ñëw tôt ou tard dina ñëw moo tax Balla combat boobu dafa yomb ci moom mais déet yaa ngi xool fe looy xool fe man nag damaa gisul nga jàkkaarloog man waaw waaw pourtant da nga war da nga ma waaw waaw xam nga man ndeysaan dama bëri kees ak caméra bi nii damay daw ak waaw waaw waaw waaw caméra bi nii caméra bi caméra bi dama koy daw ndax dama ragal caméra léegi dama jëm mag mais mais mais mais mais yàgg baaj parce que loolu amateurs yi doyaluñ ci Kera bëree boobu mais ji ji Balla Diouf ne nga yaa ko yee six heures du matin bi nga ko yee loo ko wax ci baaj dama ko yee ne ko gis nga ni mu toll noonu loo teg loo ko bësee bu mu yàgg na yegg na suuf maa ngi mu ñëw nduroo bëre tant que demul ba tëdd bul bàyyi tant que demul ba tëdd bul bàyyi bërikat xam nga bu limee ñi mu daan daan naa ñu bëri bëri de ay champion bi daal ren de doon na jos mu lan waaw waaw man bëri maa jos te moom bëri naa jos moo lay wane champion ba tey mi ngi ci làmb ji bëri naag Balla Gaye waaw te dégg naa mbapat yëpp dégg naa ko mbapat dégg naa daan naa ay pankol daal ci mbapat mais man man du ma ko limal moom mooy limal boppam mooy limal boppam am na solo ñi mu daan dégg naa ko mhm. waaye dafa nekk mbër boo xamante ni time fekkee time ngay xool hmm. yaa ngi def erreur fekkee ndawaayam boobu ngay xool yaa ngi a ah, bëri de wax dëgg yàlla xanaa fori mama Sonko nag bokk na ci ñi doon euh, topp ay mbapat ak yooyu waaye bëri moom xam naa ne bu juddoo Fass rek moom euh, nekk ca koñ bay bëre. ñun nag dañ doon def foofu euh, ay bëri yoo xamante ni Lamine Diop man borom dibiteri moo doon teg bopp xar yi. Ah. bopp xar yi ñu doon ba xam ne bopp xar la. su yu sama grand frère da jël njaga. lu ci bëri wala fleur jël ko doomu Mbaye Cissé. wala lu si bëri Moussa mbir ki jël ko waaye ba ma xëy màgg ba xaw am doole dama doon jaaxal bu ñu tegoon rek ma jàpp leen daal leen par kenn kenn euh, fleur yi bu ma koy bot doomu bay si bu ñu ñu ñu julli fajar. bi ñu koy xam nga ne loolu ñun dañuy commencé minuit ba fajar. di bëri waaw moo lay wan ne ñu ngi rek. waaw parce que duñ bàyyi quoi surtout nag bu wisee nii bu wisee bay taw taw. xawal yi la ñuy génn bu waaw. am na solo léegi damay ñëw ba tey ci Fass googu parce que Fass dañu gisoon comme loolu nga ko waxee Djily Mbaye ay Balla Diouf ay Tafa Gueye 2 Papa Sow ay mbër yoo xam ne taa yi guddul mais ay bëreekat loolu dafa mel ni dafa raaf Fass dafa jeex parce que am na ñu wax ne Fass léegi amatul ay bëreekat amatul nangam yow loolu loo ci wax. am na ñu koy wax de. waaw xam nga xam nga ñoom ñooy wax mais Fass bu suñu ñàkk bëreekat hmm. am na boo yoo xamante ni man ma amee combat di contact ak ñoom. Hmm. mënu ma leen daan benn jël yow fexe nga loolu. comme yan booy. am na ay yoo xamante ni lamtoora ay boo gaaw faas booy génne guñ sax defaguñ dara bëreeguñ sax hmm. ay ay ay Papa Ndoye hmm. ay am ni ay booy ay booy am na booy yoo xam ne booy yu bari la ñu ngi foofu mais boo amee combat bu nga daan leen problème lay doon parce que ñoom guddeeg bëtal ñu ngi foofu di entraîné kon la tey mu nga fa ma nga fa mais gars yi xam nga ressource waaw c'est que mbër yi nga wa jox combat hmm. ñuy ne Fass du ñu am promoteur bu la ko dëggal te Fass dafa màgg promoteur boo xam ne dafay jël ci booy di dëgg ay jamono Moustapha def loolu mooy bëri ba si yàgg nañ dugal sama ñaari booy yi. kon moom daa taxaweetul lool xanaa Tapha Gueye. non mais te amatul temps bi léegi. Ah, ah, war na ñàkk temps ba sàgganee Gris Fass. waaw mais xam xam nga tamit xam nga xale yi da nga leen jox ñu tolloog ñoom jamono mu ngi leen lijjanti mu ngi leen boo xam ne nii mbër bu mag bu bu bu doon bëre ci biir waxaale bi léegi dugal ñaari ñi est-ce que mbër nekk di bëri léegi mm-hmm. dinañ dugal ay comme tey Gris Bordeaux wala Lac Rose wala Lac Rose Maodo kuy dugal na ko dimbali ma dugal waa ñaari Boy Fass loolu ngay def pour pour làmb ji a avancer parce que boy yi mënuñu ñu mënuñu di entraîner guddeeg bëccëg te duñu am combat ah ànd ak mbër di bàkku rek kër gaa ngay saxaar fan yëpp dégg nga sol blouson rek waaw sol blouson rek booy rek loolu fierté la ci ñoom uh-huh. loolu fierté la ci ñoom ndax sol blouson Fass mm. man nekk naa Fass lu yàgg mënu maa sol blouson Fass Modou Awa de wax na ma ko bëri ki dem ne na nekk na fa lu yàgg mënta sol blouson dama dem nag bu ma commencé sol blouson Fass da ngay wan ne yaa ngi ndax Fass ba fa nekkee rek solo blouson nekk ko fa déedéet fekk demoo stade yombu mbër demoo stade ku raj mbay gay fay génn waaw génn sànni yi ñu def nan ñu mbay gay fay lu ñuy tëgg non mbaara bukki lañu njëkk woo demal ma ca ma dégg demal ma ca ja wurata ki taj wurata ki taj taj ki taj taj wurata ki taj loolu bu ko bu safaage defoon rek boobu bu safaage di siggi waaw ñu tuur ko sow mi mu dukkat dox nee juróom ñaari ndéet ku juñ ngay soow waaw dafa gi bu duggoon foofu ñu suñu sir day ma day dagg ndax suñu sang lañ ko yëg kon lamb ak mbërëk mbërëkub tëggkatam yëg-yëg dafay am wax nee naa la ndënd dëkkul ngëwél fu mu dëkk ca Lawbey la juddoo waaye ba mu bëggee siiwal dem ngéwél ngéwél la ko siiwal ki taxaw ni entre côte fo filé boo ko ci laajee mu wax la ci lu bari cey na ngi nii <laughs> moom lamb la xam nga lamb dafa neex non lamb la te xam nga boobu boo ma fekkee fii jeune amateur toog waaw ba def yëpp nga xam ne fu ne laa ànd ak moom ci wàllu lamb ba de sonn na ci yow fu ne yóbbu naa ko ba Tambacounda laa ñu ay sabagoom yi jar soixante-cinq mille mënu ma ko fay dana ma sarax naa la ko garaaw bu fay waaw moo tax tey ma dëkk sax mbaaw mu xewle wax ma ko war a wax ga jeune amateur yi man teew waaw teew ku la neel ci naaj bi nga neel ko ci kër waaw te dina amaata nag dinañ dañoo jërë jàppale am na solo ndax xam nga làmb nga ciy waxtaan day ubbeegul waaw kooku yaa ngi bëgg nga làmb bëgg nañ mu avancé bëgg nañ mu avancé waaye làmb moom euh, xale yi ci nekk hmm. boo bëggee nekk mbër dëgg dëgg dëgg sport dafa am lu mu àndal sport lu mu àndal escopar ne nees koy amee ah boo defee sport waaw foog nga am escopar ndax boo jógee entraînement foog nga laal euh, euh, kii ñeenti laxas yóbbaale ñeex ñeexu cere loolu lekk mbër de Ah. laxas mbër laxas la war a lekk mais mbër mu ndaw waaw yorogoo moo tax ma la sport dafa laaj escopar boo yoree tuuti waaw di nga mën a jënd six laxas ñu may la ci ñeex boo demee ju cër ju bëri sëpp ko tiim ko <laughs> ne boo na cel ak moom rek moon la la yoon <laughs> maa na de non maam góor gi naan maam góor gi ñaan ne cere dama naan cel ak moom waaw laax ma laax amu waaye fon dama faw moom que maam góor gi du moom kenn ko ko daa jeex ci làmb Babacar damay waxtaanee làmb man dama bëgg di di waxtaan ci làmb bàyyi woon naa sax télé mais yow sama nit nga. waaye làmb. la ci nekk dafa bari. bokk des damay waxtaan keroog maa ngi dem benn nit kii wax émission mais may ñu ma ma développé. Mhm. keroog loo bëggoon wax dégg. non non biso ñoo waxtaan ci làmb. bi waxtaan ci làmb yaaw daal nekk fa wuri nekk fa may ma ma développé dama wax la la source làmb. wax ma ko maanaam liñ ci war a def moo ñoo ko moom. Mhm. nañ ut ay promoteurs yu ko tëgg. Mhm. bu ñu ko mënul tëgg ñu jox président de la République mu jàpp lañ ci làmb ji am benn ko waaw jàppale promoteur yi du teg leen ci yoon su ko defee lamb day dox ñoo ko moom de jéggaani ñu ko bu weesoo ñun waa Niger la hmm. bu weesoo waa Niger waa Burkina Faso la Mali sax da ngay bëri léegi kon waaw waa Côte d'Ivoire yu bëri Côte d'Ivoire am na mbër moo fu mës a jël tànkam waaye keroog laa xam ne jël tànk baaxul hmm. doon ma kele war ma ndam mais keroog bu may yii yàq yàq joob ne na moom jëfi day ñëw ba ma koy jëlee ci keroog keroog yi yëg ndaa xam nee na mosuma gis olof mën bëri mosuma ko gis la yaxya ba tey mënuma ko gis nag maa ngi koy wër dëkk bi yëpp yaxya wuyul tafa waaw yaxya foo ne ah waxoon naa la àggaagaa teg ti tak loolu soo gisee dara dara ko waral te njëfi mooy bàyyil fayal waaw waaw parce que suñu baam sama xarit la hmm. lamb dafa am yooyu gisoo lamb ji dafaa nga gis cimikaay koo xamante dafa xaw wuré di nekk fa nga nekk di kooku mooy lamb ji bi ñëw ne la yow pare nga tey du du ma ne ko lamb ji ma jaaxal ma sa waay man damay wow rek mun a ma tëbal suuf see sa tànk la ma tànk sama tànk la laa teg teggi ko mu tibb baaraam yi te tibb bi te tibbi ñaari côté def ci butéel ma sangu. affaire yi dañ affaire daa après ci laa dégg yi yuuxu ko tin yàlla ñoo ngi lay ñaar taafa jël ndam lee te ñooñu andi ma leen fa aw ma kenn ku ma jox billet na ko demal ay sar ma. nga jékki rek dégg supporter ma dégg keroog damaa waar Tambacounda. kon gàllaaj ak lamb doy na waar. waaye lamb dafa yéeme lamb dafa yéeme lamb li fi yëfu jëne la. Hmm. boo déggee ngay bàkku bari naan law la cat la xel law la bët. waaw bàkku jëne yaa tax. Hmm. lamb jëne da ko seetaan di. la lamb ju mag ju ne jëne yaa nga fa toog. li seetaan day ñoo la gën a hmm. ndax tëgg ja mbaaru bukki yëfu la ku xam sa kër te waaw yaa ngi waay waaw Babacar bu ma yëngal waay bàyyi woon naa làmb mu ngi doon bàyyi rek may ambiance nii jinne xam sa ta te xamoo këram xoolal loolu yëfu làmb la xoolal géej mambulaan ku si xis tooy boo génnee taay géej mambulaan ay tëggu junne la ay tëggu tuur la yooyu ak yan yee yu bëri bëri bëri ba bëri am na ñoo xam ne dama koy bañ a wax si télé rek xam nga yooyu ay secret la dégg naa mbër mu de mu ne làmb moom bu defee ñett la sax ya am na ci yoo xam ne jàpp ne ñaare sax du lu baax parce que la ñuy def ci gàllaaj day ëpp te jaru ko. Euh, wax boobu noo ko gisee euh, gis gis nga jaamu ko du yàlla dëggantaan. Hmm. du ma nekk mbër. ah waaw. tax. ndax ndax yu bon yi la. lam ah, yu bon lam bëgg daan bëgg daan da jar lu ne. comme bëgg daan sa waa ko ñuuxu. waaw maanaam dem fu ne rek defaa nga dem si paa mu sarak mun def la benn ne la maanaam tegtal la benn benn sëf boo xamante fi nga ko war a sëf armel la te xam naa ne da nga koy def. yow mos koo def. ah loolu question. man man yooyu du ma du ma ciy wax sax ndax ay ay yooyu. danga koo maa bëgg yóbbu kër yaama. déedéet man doo man déedéet déedéet man dama dul wax man dama aw ma galaaj sax ñu ne aw ma galaaj nga bëgg ma ko wax loolu ma aw ma galaaj. Ah. mbër yam galaaj nga koy laaj. ñoom laa koy laaj waaye des fois daal mbër moom nga dem si maaraam bu tëtal la ne lii ci bopp bi nga koy def. wala ñu ne la lii da koy aj wala lii da fekk nit ku kii wala lii bis làqu tey wala lii ki nangam nangam wala lii ay yuutu dañu néew wala perkaal yoo xamante ni làmb dafa am yooyu de ñoo ñi may li mbër yi xam nañ li may wax ngay wax ni doy na waar làmb dafa doy waar de. Ah. làmb dafa doy waar moo tax làmb su nekkee daal ba ba ba màgget te dara jotu la. santal suñu borom ndax bëgg daan mbër moom ndax dalay jaral lu ne. dafa mel ni tey rek mën a bëreeg Balla Gaye wala ma bëreeg Modou Lo wala ma bëreeg kenn su ma sëriñ waxee ne boo defee nii dañ ko daan laal lu ne laay def pour daan ko. am na solo mais Jordan moom day bañ daa defet ba ca Tamba noo ko daane. moom day bàyyi defet boo xam ne war na am 15 ans. mun na topp ci di laaj kooku ba ma arbitre bi joxe victoire la pare ci que na moom bu bu maanaam bu bëriwul ak yow. Ah. même bu génnee àddina sax yàlla na yéex du am lu ko neex. et et et e, kooku mën na ndax daa mën a bëri. kooku la ma ca daj. waaw ah, dégg naa ba nga pare da ngaa toog. ba pare damaa toog di jaaxle ne ndax kii laa doon bëril kër ba mu simee ko laa xam ne mbër am na. keroog sama sama xel xalaat ma ci kan la dem. kii kan la dem Baye Daour ndam sa yàlla sa. bi bi Jordan sumee ko bay Daour nga gis. Baye Daour laa gis ak tànk ya ak pétaaw ya nga ne tey am naa kii a bàyyi daawul la mu def ci boppam nit du ko def yal na ko yàlla xëyram tasaam ak jënoo fi daw si ak mën a bëre ma gis ci mbir ci mbir gi mu daw xuur ñuul kuk kër Bombardier laa gi mu taxaw ci gannaawam na ne ndeysaan ay waay boobu Bombardier nee na ma kër damaa dawal sama ba dóor soo lu ko ko yóbbee jël bi ma daan jooroon na ko jaaxal fa nga jaar fa ma jaar poqotaan ba daw génnaat naat ko kooku kuy bëri du talonaat du bëri bu mu neex na nga dugal ci fubal loolu nga def barke Serigne Bamba Mbacke àdduna léegi la changé rek ala El Hadj Diouf ba ala El Hadj Diouf taw naat ko rek wër ko ndomb rek ne ko taj mu dang ma continuer waaw ko laa nga tegoon bàyyi wuli barke seen wuli ba non wuli wili bàyyi wili wili sunu xarit waaw wili wili ne sax sama xarit la waaw man mii sama gaayan la ah, wili de man sama xarit la wax dëgg yàlla lig Nicolas ak Aldo yi <laughs> xam nga man làmb foofu la tol woon jamono jooju mhm. ma jamono ji làmb fu mu mooy xaar la ñoom booy ñëw nga bëreeg ñoom mu bëreeg ñoom man jamono maa doon dem boobu yaa doon dem mais léegi dematoo dama di mag dama leen xaar ba ñu ñëw ma jàpp arrêt ba rek ngay taxaw arrêt nga ko léegi ñu la kër Massar Malika maam bi loolu bayax <laughs> toog <laughs> te lépp yaa koy yóbbee lépp mën naa ko yóbbee mën ngaa dem yàlla mën naa dimbali waaye mën toog <laughs> te boo toogee baax du baax ci a bëre Lirou Diane bu ñëwee fu muy aw moom non xam nga Lirou moom sax moo fi nekk di ngam ngameeg di wax dem la moom leer na la leer xam na fi ma jëm yow da nga koo mën. Milou Diane ñi muy bëree xam nga ne man maa maa ko mag. ah loolu wax. nee maa ko mag bi neen du lekk yàpp liiru dafa xamul yàpp moom keroog ba ko Saliou xulle évité yàpp ba tey dafa topp yàpp di ko wax rek hmm. kenn du wax yàpp ci digg mbooloo. daa ëpp daa ëpp yaramu jàmbur la ñuy wax. wala nga ne ndawal. moom du nee na mënumaa lekk yàpp mës nga gis géwél bu dul lekk yàpp ci àdduna. Hmm? doy na géwél yi après lañ bëgg. kon liiru loo koy wax moom. li ma koy xamal daal nee naa ko luy nen du ma daan. luy nen. doomu jaan day nen. jaan day nen. mbonaat di nen waaw nee naa ko man luy nen du ma daan. kon su arbitre bi soufflé day daanu. ah mënul loolu de laa gën a gis. Ah, Balla Gaye ci ginnaawam de. Balla Gaye du loolu moo koy def moom xam naa xam naa ala la ko waaye man daal xam naa ne moom am na ñu ma yaakaar ñoo xamante ni moom liiru man nañ koo nax. mën nañ koo nax waaw waaw.